Thiatou a à gauche Pima à xam ni mbëre lay def xeex lay def lépp lay def Échelle ñu dox ci kawam waaye Échelle ki ngay dox ci kawam xamoo ko de jotoon ngay bëreel de na nga def attention bu baax a baax ña ngay jokkaasante Échelle moo suur la loos gis nga da koo bëgg a touché waaye tey bu ngeen jàppee bu ngeen jàppee ngeen xam ni lépp dëgg xale yaa ngi wàcce ka di gudde ka gàtt ña ngay gudde ka gàtt ña ngay gudde ka gàtt ñoom ñaar ña ngay xeex ña ngay xeex xeexu xeex bu ñuy xeexu ginaar la waaye jàpp leen rek bu ngeen jàppee nga xam ne lépp dëgg la Etienne Étienne sa tànk yi ba xale bi du ci dugg ña ngay xeex ñoom ñaar war na numéro ma ngay dox ca kawam léegi war na numéro 2 ma ngay dox ca kawam Coumba Arène moo leen di arbitré ndeysaan eh doon jël nga coup eh laa ilaaha illallaah bu yàggee ngeen jàpp de ay eh, waay Etienne waay ay waay waay waay daw na jàpp ko tey nga gis bëre jàpp nañ leen mu ne takk na ko eh! Jordan Jordan li ngay def nii ni la Étienne def Jordan bu ko defee wala boog Étienne bu la ko defee bu la ko Ndiol Moussa def lu de waaye Étienne bul dugg ci loo xamul de Étienne bul dugg ci loo xamul gis nga ko gën a daanu nga daanu daanaan ngay bëreel xale bi barki démb bas xale bi barki démb la jël benn trophée trophée bu mag ci poids léger ba mu doon bëreel mu ko final woon ak Ndefleng ak Jordan euh, numéro 2. combat bi nekk lool. maa ngi sant yàlla bu baax. sant waa Xoyil bu baax sant sama supérieur. Ali Sakho gii di Pape Gueye. man ma ko fàtte benn yoon billahi dafa baax ci man trop. maa ngi sant waa Xoyil bu baax a baax. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sa premier combat. première victoire. première victoire waaw. gis nga def nga ci si final maa ngi final ba ko def léegi. naa ko ak billaay wala maa ko mën. kan moo nekk sa kanam. waaw ku ma jox rek ma bëree. naam wax na nan nga bëree. naam li ma wax na noo bëree nan nga bëree ñëw si bëree bi. non aywa dama ko yokk si ma mat sëkk. billaay wala lamb rek lim laaj rek ma jox ko ko. maa ngi jëf baax a baax sant jërëjëf jërëjëf. sant wax yu baax. merci beaucoup. yaa ngi jël ay coups. caatu kooki yaa ngi jël ay coups. ndaawal ngay bëral de. boo mënta bëree da ngay daanu. oh ñaari naataango lañ affiche bi rafet na Caatu Koki mun ko fixé waaye tànk bi dafa ajoon garde mais bàyyi na garde bi gis nga Caatu Malaw reculé na Caatu Malaw eh laa eh, ilaaha illallaah Caatu Koki jël na coup laa ilaaha illallaah xanaa xamoo ki nga na jël eh, eh, daw na jël ko daw na jël ko Caatu Koki ma ngay rasu day waaj a mboot wala lu muy waaj ma ngay rokkas caatu maalaw téye na boog bébé maalaw oo oh, ay lamb waay bébé maalaw dama bëgg a nag dama bëgg a caatu kooki bul génn boo génne dañuy jël caatu kooki sa entraînement des na yaa ngi noyyi caatu kooki li ñu yaakaaroon ci moom dikkul caatu kooki caatu kooki yaa ngi noyyi bébé maalo yaa ngi noyyi eh, ay waay waay lamb waay caatu kooki mu ngi dox kaw bébé maalo mu koy topp ay eh, caay waay waay lamb waay alaaw ñu ngi lewaatoo léegi ña ngay lewaatoo léegi caatu kokki waane na waaye mbir mi du loolu de mbir mi bëree la xeex la daan la ah, waaw situation baa ngi nag situation bi mu ngi ralentir waaye ku xam caatu maa la xam ni ndaanaan ay caatu Koké lay def nii léegi nag situation ba tàmbali na nag ba tàmbali na laa ilaaha illallaah histoire ba tàmbali na eh, eh. caatu Koké yaa ko jàppante na ñoom léegi la bëre feeñ léegi bëre feeñ léegi bëre feeñ léegi bëre feeñ añ na ko bañ na door na ko tànk mu bañ. door na ko tànk mu bañ Caatu Koki am na lu muy laaj ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk am ñoom ñaar laa ilaaha illallaah Bébé Malaw fi mu jàpp nangu ko bàyyi Caatu Koki baa doo jëlaat avertissement boo génnee Caatu Koki da nga de Caatu Koki Caatu Koki jël nga avertissement ay Caatu Koki lam yaakaaroon amul de ndeysaan waykat yaa ngi way tëggkat yaa ngi tëgg mbër yaa ngi lewaatoo ci géew bi seetaankat yi ñu ngi seetaan reporter yi ngi reporter caméraman yi ñu ngi caméra arbitre bi nee na dix minutes di première minute bi mat na arbitre soufflé waat na deuxième mi-temps laa ilaaha illallaah ay caatu kooki te nga sa combat bi baax na daal Bébé Malaw caaxaanul de foogul réewul baax ni ma ko xame waaw da ngay leewaatoo ndànk ñoom ñaar yaram yi tàngagul kenn meragul combat bi amagul mer kenn meragul Caatu Malaw mu ngi koy wër Caatu Malaw mu koy wër. dafa mel ni caatu maalaw mu ngi jël maanaam bëgg a jël ay matukaayam ci combat bi ngir jeexal ko ndax adversaire yi ñu koy xaar ah waaw gars yi ko gaawal dañuy ñibbi baax na daal baax du jeexee eh laa ilaaha illallaah Caatu Malaw li muy fexe nii bu dalee du baax de wala boog Bébé Malaw Caatu Malaw ak Bébé Malaw dañoo niroo laa ilaaha illallaah Bébé Malaw eh Koumba Ndiaye mel ni mbàccum kër laa ilaaha illallaah mu ngi koy koor door na ko laa ilaaha illallaah eh ne woon naa leen ca Bébé Malaw añ ba ana caxabal del moytu mu caxabal la Bébé Malo am na lu muy waaj añ na ko añ ko laay leeral na ko daanal na ko ba caaxaanal ko ak euh, waaw ñu ngi ak euh, euh, Bébé Malo Bébé ñu ngi lay nuyu. waaye grand xaw fay. combat bi metti lool. combat bi mettiwul coow la bëri rek coow la bëri rek mais lii du combat. njaarim xam nañ ne peut-être mën na ni ma toll nii jaaxal na leen mais ñi waa njaarim jaaxalu leen gan yi la jaaxal mais ñëpp xam nañ ma lii du combat victoire bi nag amaatu maa ko may sama grand sama xarit Dame Ngom Dame Ngom ak Mame Gor Diagne sonn nañ ci man daj ci man lu ne Cheikh Senghor Abdou Gueye Djibril Mbaye su ma limee damay juum waa Domb waa Mbayar waaw grand xaw si dina wax ne naka ñu grand yi may chance ñu bëre nañu may chance combat bi kii su ma ko jël kii njaaram kenn xamu ko. mais yow ñaata combat nga defagul. arène bi stade fii def naa fi trois combats. trois combats deux victoires. benn défaite. liggéey ba ci kanam ba. àll bi bëre naa fi cinq combats cinq victoires. ci àll bi ci àll bi. man ah, adversaire yooyu ñan la. yan affaire adversaire la. fii ba maanaam Cheikh Niang combat la peut-être sama grand yi am na ñoo xam damaa dëkk ñoom ma bëre mais ay ñoom Noiro bu Mbàkke gaa yooyu ñoom Cheikh ñoom ñoom euh, gaa yi dañoo war a ñu bëre ay Gris ñoom. ay ñoom Hercule gars yi dama war a bëri sama ñoom guy gi mu guy gi mu mbudaay ay Zarko ñoom Lagros mais niñ ma fi jëlee di jël samay mag nañ ma jël man maa escalier mbayaar balaa nit a dem ci polis ay ñoom euh, Sonacos man maay seen rak nañ jaar ci man balaa ngaa dem ci ñoom man maay buntu mbayaar kan ak kan nga daan fi fii Mali ñaa laa fi daan euh, tampo daan ma fi mais fii gars yëpp daan na leen babat loolu moom njaaram yëpp seede nañ ko boo ñaa bu mbàkke maanaam moom combat la na ma jël. gërëmal ku la neex. ma ne gërëmal ku la neex. ah maa ngi sant ñëpp waa Mbayar sama gars yi ma nekkaloon kàmb sama grand bi si ginnaaw euh, sama gars yi ñëpp maa ngi nuyu waa sapeur yi ma nekkaloon entraînement ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm. jërëjëf di leen jaajëfal yéen waa. jërëjëf merci beaucoup. Ah, mbokk yi yaa ngi direct Wassare Lamb ñu ñu ngi lay fay ku baax sëñ bi na ngeen def waay. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. di leen kaay nag waaw Ousmane Camara Diouf bi sax mooy suñu mag moo jiite délégation bi. waaw ah, kii nag sëñ Modou Mahfouz Diop. Mhm. moom c'est un lieutenant à Dia. ma ànd ak Soda ñu ngi di jigéenu El Hadj ak Takko mhm. vraiment ñuy am mbégte ak contentement bu baax a baax. c'est la première fois. waaw non c'est la énième fois ndax El Hadj moom ku ne xam na ko. ci réew mi ci territoire national ak international vraiment bésam mënul ñàkk a mel nii ñuy remercier assan Ndiaye aussi di ko di ko sant bu baax ndax lii mu def nii dafa doon loo xam ne du lu ndaw ndax ku jël bés bu tol nii dara jale ko El Hadj Dia fii ci de euh, région Diourbel dafay doon loo xam ne nii lu rëy la ñu koy delloowaat njukkal li di ko sant vraiment di ko gërëm yéen journalistes yi aussi euh, liggéey bi ngeen di abattre ku ne gis na ko ñu leen di ñaanal xéewal ak tawféex. boo ñu doon wax El Hadj kan la nga ñuy wax moom la doon. mooy ki nga xam ne mooy borom Bambey l'ami di président Macky Sall ki nga xam ne moom la Macky Sall wóolu fële ca département Bambey mooy le coordonnateur départemental ki nga xam ne mooy liggéeyal Macky Sall fu mu toll lu am ak lu mu amul lépp di ko jël di liggéey di ko def ci président Macky Sall kooku mooy El Hadj Dia borom Bambey. kon mbégte la lool ngeen ñëw fii tey. wax dëgg fa yàlla dañoo kontaan lool région Diourbel nii ñu accueillir délégation El Hadj Dia ñu ànd ceeg sunu mag. sunu xarit Ousmane Camara Diouf Sinko vraiment kontaan nañ ci lool xam naa dama koy bàyyi rek mu lancé li nga xam ne nii moom la ko El Hadj yónni bu ko defee mën cee leeral lu balay bare bare nuyu nañ la ngi lay fay. waaw waaw li kii wax na lépp rek euh, di feejale suñu collègue ak Assane ah, di am mbégte vraiment di ci région bi ndax fii ku fi ñëw tey xew ñun ñu xew le ndax ku wax Alaaji na borom Bambey ku wax Bambey na Jurbel donc def naa ne kon suñu bis la ñu ñooy dalal mbër yi ñooy dalal événement bi vraiment ñoo ngi kontaan bu baax a baax a baax di am mbégte ak Euh, ci Assane di ñaan événement bi am réussite déjà sax am na ko parce que ku gis ñu feesee nii nga xam ne vraiment te mbëri ànd nañoo ak dal ñaan mbëri ànd nañoo ak dal su suñu xol sedd na euh, vraiment événement bi neex na. lu ngeen ñu mën a wax ci Assane. waaye Assane nit ku baax la te yaru la ku yaru la nit ku posé la parce que li mu def nii euh, bu doon leneen la ba léegi làmb ji yàqu na xam na ne bawul tëgg fi làmb yombut. mais bu ko amee ba léegi mu nekk ci lépp am discipline lépp nekk ci fair play donc vraiment yaram moo ko may. Euh, management na moo ko may euh, kon donc vraiment dañ ko ci sant du ko gërëm nit ku baax la. kon daal euh, tey yëg-yëg bu rëy la. waaw vraiment suñu xol sentaan na ñun ñëpp suñu xol sedd na parce que lu mel ni bu ñu ko tuddee El Hadj El Hadj nekk Ndakaaru am gant am gant daan ma yebal ma ñëw ma ànd ceeg suma frère daam ànd ceeg Soda Ñëng ak sëñ Modou ak ñëpp vraiment suñu xol sedd na ci di sant Assane bu baax a baax a baax que le maire gagne. jërëjëf jërëjëf. ndeysaan beneen combat yi nii di combat xale-xale diggante Siteu bu Grand Diourbel ak ak dana yaamu abi soxla yaamu defal ndànk ci Siteu mi yaamu defal ndànk ci Siteu baax na daal bilaay boo deful ndànk mu jóge fi ci combat bu neex waay ma jëlaat avertissement waaw ñaari avertissement abisina na xale bu taxaw laa ilaaha illallaah xale bu déclenché na du wax bu dal yàlla moytul ko bañu boobu dal barakat ngay baral de ay waay xale yaa ngi xale yaa ngi dem Siteu ngi bëgg dem laa ilaaha illallaah waaw yaa mu suutaa ngi mel ni la ragal waaye gis na ko bu demee ba mu yàgg li muy indi laa ilaaha illallaah na tukkal la jël ko njëkkal réew ya takk la ko mot na takk ko takk la ko tekk ko xale bañ na ay waay waay waay waay bañ na rasula ay doole ay waay ngay bëreel am doole Fouta Diouf la bañ na lépp lu ko bañ na ko lank na ko fañ la tee baax na lay laa xam na gabal na ko bañ na xale ba bañ na ay waay xale ya mën a bare waay lay lay la galaaj gom jàpp na la dëgërul ay bu la jàppee ci ngemb bu la jàppee ci ngemb dana la xar gëppam lay lay la la xale yaa ngi bare ñoom ñaar ci taa ngay rokkas nga rokkas ko moytul de ay xale bi bu jàppee fu dëgër dina la xar géppen lay lay la eh. yaa yaa moom ñëw ci sa kaw Siteu Siteu gëdd mu taxaw lay lay la dawat na jël ko jëlaat na tànk ba jëlaat na tànk ba jëlaat na tànk ba jëlaat na tànk ba lay lay la Siteu daanu nga yaa mu daan na la de yaa daan na daan na la bu rëy waay ah waaw da la ëpp doole doole doxul jàmm attention attention ñu ngi ak sëñ Modou Gningue ñu tuddee la bis tey ngañ teew fii loo yëg. li ma yëg mooy mbégte ak xol bu sedd ndax euh, dama ànd ak samay bokk boo xoolee stade bi xam ne ànd naa ak samay bokk euh, la ca gën a dolli ku neex mu neex ma muy ma ak sama maire Pape Diouf sama gën a sedd guy. fan ngeen jógee ñëw fii dëkk yi bu ñu wax Yarwaa leen jógee moom mu jógee Dakar euh, moom ma jëkk sax ci stade bi li may bëgg-bëgg yëf yi moo ma ko gën a bëgg samay bokk itam ñoo ma ko gën a bëgg. muy loo xamante bi daal ñun ñëpp ñoo ko bëgg yëg-yëg boobu laa ci am. c'est la première fois. Euh, lise booy c'est la deuxième fois pour Assane waaw deuxième édition bi moo nekk nii waaw. sa diggante ak sama diggante ak Assane muy diggante boo xamante ne bi ak bokk la ak xarit la ak mën a la noo bokk ci Bawol bokk fa ñuy liggéey ci Dakar loolu moo tax Assane jël bis bu toll nii jagleel la ma ko maandu ko ak samay bokk rek daal di ñëw. sa diggante ak waa Yarwaay. sama digg ak waa Yarwaay nag it aw ma seen fay. ndax samay xarit a ngi nii samay am di jàmm ngi nii samay bokk ngi nii samay soxnaa ngi nii sama ginnaaw muy loo xamante ni nga jóg ànd ak say bokk lenn dàq ko li loo moo tax sama xel dafa sedd guy ba daanaka mënu ma wax loolu lu bari daal. sa délégation ñoo àndal. sama délégation bi ma àndal ànd naag samay rak ànd naag samay xarit ànd naag samay am di jàmm ànd naag samay nijaay ak samay wóllëre ànd naag sama euh, sama sama maire monsieur le Pape Diouf kon noonu lañ délégué daal di ñëw fii ci stade bi waaw. Assane li ma koy wax di ko ñaanal yàlla rek saa su ndax nit ku baax la nit ku bëgg boppam nit ku dul fàtte démb man ku dul fàtte démb rek kii looloo ñu boole du fàtte démb Assane looloo ñu boole ndax du fàtte démb te dafa fonk cosaanam loolu moo ma boole ak waaw. gisee njaareem. njaareem tuwaar kàlla macha allah ndax njaareem a ah, fu nekk waaye boo fa wooyee bis danaa fa sawar rawatina njaareem ndax man damaa bokk ci njaareem moo tax ku ma woo ci njaareem rek ah, ko xeeb dama koy naw ndax njaareem koo naw. Njaareem day sama fierté waa kaddu gi ngay mujjee tey ah kaddu gi ngay mujjee kaddu gi kaddu gi ñuy mujjee mooy santaan ñëpp sant samay bokk sant askan wi sant monsieur le maire mi Pape Diouf moom laay sant ndax ni ñu àndee ak man ah du lu ma leen euh, defal du lu ma leen jox ndax nii ma àndee ñoom tey bu doon nii lu ma leen defal la ndax mënut a nekk munu ma fekk kenn ku ne fa nga nekk ma am lu ma lay jox wala ñu am lu ñu jëflanteet kon ñoom ñoo baax waaye maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp waaw ndax kii itam di Pape Sène di sama xarit jóge ba ak yaay ah ña fa nekk di xaritam ak i am di jàmm ñëpp bëgg a ñëw ñëw moo yombut te ku la xam ne li li laxasu ci ginnaaw tabaski dafay bari xew yi day bari ñu séddoo ko rek ñi jëm si fii ñi jëm si feneen rek. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tey ñu gis la njaareem lu xew. tey dafa am uh, xew-xew bu fi am ñu yaakaar ne waa Yarwaay rek ko moom ñu yaakaar ne waa Bawol lekk ko moom mais ki xewle tey dafa boole Ndakaaru boole Dakar Plateau boole Rebeuss boole Medina boole fépp doon nit ku baax tey sama ñëw bi fii tey ñëwal naa waa Rebeuss ñëwal naa waa Dakar Plateau ñëwal naa Ndakaaru yëpp ndax Ndakaaru dañu ne ñi fi fekk baax ak ñi fa baax fek ñoo ko bokk kii nag baax da ko fekk Ndakaaru ndax bu dee tey ay mbokkam ñëw nañ am di jàmmam ñëw ñi mu dëkkal tamit di yeewandoog ñoom di liggéey ak ñoom ñoo ma yebal tey ma ñëw pour témoigner baaxaayam ñi muy yeewandool di passé ñoom presque toute la journée ñoo ma yebal tey pour ma euh, témoigner ne moom liggéeykat la nit ku baax la te nit ku am engagement la tey nag bi ñu ñëwee fii suñu xel gën naa dal ndax nit ki mun na nekk Dakar baax te wanu ko ay mbokkam mais bi ñu ñëwee fii tey fekk nañ fi ay mbokkam fekk fi famem fekk fi ay am ni jàmmam kon tey suñu xel dal na beneen bi tamit muy Assane Assane Ndiaye tamit ku ko xam-xam ne promoteur bu mag la promoteur bu mag bu dëkk Rëbës ñun ñu dëkk Rëbës moom it plateau soxal ko ndakaaru soxal ko kon tey mun nañ ne ndakaaru moo déplacé wu ñëw Bawol ñëw nag si capitalu Bawol di Diourbel di capitalu mouridisme kon tey bés bi bés bu ala dawme la ndax li ci lonku moo bëri Bawol mi ngi ci ndakaaru mi ngi ci plateau mi ngi ci kon tey suñu teewaay tey dafa bëri signification donc loolu moo waral suñ teewaay tey. ñu lay ñaanal ay yeneen i mandat yeneen i mandat waaw ñu ngi koy ñaan di jëm si ay élection di ñaan yàlla yàlla na yàlla def li gën ndax yàlla lu baax rek lay def mais naal na leer ne sëñ Modou Gningue mii jàpp nañ ko démb tey wan na ne lu tax ñu jàppaat ko te incha allah ñu ne moom ba ëllëg. jërëjëf jërëjëf jërëjëf monsieur mbokk ñi ngi ak euh, Moustapha Samb yaa ngi direct euh, Wassare TV ñu ngi lay ñu lay fay bu baax sëñ bi di la siyaare di rafetlu seen taxawaay ci bisu Assane bi bu baax. tey si ñu gis la njaareem lan nga fi wut. tey de sama xarit sama doomu day Assane di nit ku rafet xol ku baax koo xamante ne bii yàgg nañ ma ak moom ndax Dakar tëdd nañ fa benn lal ma moom huit ans yoo xamante ne bii ñoo bokk néeg. kon bu jëlee bis bu toll nii dara jaal ma ko dama koy sant di ko gërëm muy mbégte mu rëy nag ci man. ndax xam nga combat bi ñu la tuddee. combat bi ma tuddee nag. maanaam combat fi ñu tuddee nii ñaari adversaires yi ñu tuddee xam nga leen. fii nii day miinu ma fi trop bariwu ma fi tànk c'est la première fois nag tey ma ñëw fi waaw. xale bu nekk njaareem moom la ñu boole ak xale bu nekk ca Modou loo waaw bi nekk ci njaareem ak bi nekk ci mu lool di leen ñaanal nag suñ borom may leen jàmm ak salaam ba ku jël ndab li mu mel ni sa morom moo ko jël. tey nga yëg lan. ma yëg mbégte ak bànneex di sant nag waa tund yarwaay wa ma jógee muy dëkkub Serigne Moustapha Gueye yarwaay ñu dippee ma ko ñu tuddee ma ko di gërëm njaageen ga nga xamante ne bii fa fekk baax. di leen sant di leen gërëm di gërëm délégation bi nga xamante ne bii moom laa àndal tey. délégation bi limal ma leen. délégation bi maa ngi jiital Ngañ Samb di sama mag di sama xarit di ci teg seex boob mii nga xam ne sama xarit la yàgg nan maak moom ak As Gueye ak ku ñuy wax Seex Raata ak Soose Maane mii nga xam ne mbër la di sama xarit di sama doomu ndey maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. tey nga kontaan lool. ma bég lool nag. di gërëm say géey it soxna Assane ndax moom it sama xarit la di gërëm sama ñaari soxna muy Ndey Ñang ak soxna Mbacke Gueye. ñoom ñëw nag moom jotuñoo ñëw waaw. c'est la première fois ñu tuddee la lamb. ñu tuddee ma lamb waaye nag mbégte mu rëy rëy la ci man kontaante Assane moom tund njaageen gépp ak tund yarwaay gépp la ko defal maa sant bu baax di ko ñaanal suñu borom. kàddu ko mujj kii sëñ Moustapha kàddu gu mujj gi maa ngi santaat yàlla di julli ci yonantu bi di sant sama ñaari waajur di leen ñaanal suñu borom yërëm leen tàbbal leen àjjana di gërëm sama wasila Cheikh Moustapha Gueye Yerwaay ak sëñ Mourtala mi nga xamante ne bii mooy doomam ci moom laa jébbalu maa ngi ko ñaanal di ko gërëm di ko sant di ñaan suñu borom bàyyi ko fi kanam ci suñ kanam ba yéene ji ma am ci moom ma àggale ko. jërëjëf ah, Bas jëlal ma champion bi soo see ngi noonu champion la. fàttewuma la nga defoon fee da ngeen a complété nag wa. Abou Soufla la ara bu bëri day gàllankte kii Modou Lo da ngay xarañ rek mën a bëre lu ko mooy da ngay daanu gis nga ko mu ngi koy a touché waaye Modou Lo ndaanaan ngay de. Modou Lo Bébé Ama Bébé Ama lim doon mooy jàpp bëre Modou Lo wane ko xarañ xeex de Bébé Ama fan la gàllaaju jàmbur ga aw Modou Lo Bébé Ama def na daanaka li xeex gis nga lay lay lay man koy door ña nga na ñoom ñaar laa ilaaha illallaah Modou Lo am nga problème de am nga problème waaye Modou Lo mbaru tànk la boo jëlee tànkam da lay waaye Ama du bëree bu jëlee ci suuf day taw teg ci sa kaw féete la ginnaaw jàll sa wet gën a kii lay bëree gis nga ko xale ba na. Modou Lo daa mel ni xam na li gis nga ko déclenché na gauche waaye Modou Lo ki ngay baral ay baram yu de maa ngi leen di suural jàmm amaana dox ci kawam Modou Lo mu ngi reculé Modou Lo sa teer yu bees sa teer yu bees yi bëgguma ci am mbër mbër téere yi ñuy tilim alors Modou Lo wala ak loole waaye ba amaana da koo bëgg a jàpp Modou Lo sa nantaay mooy bëre doo taxaw taxawal nag xeex xeex yéen yaa ngi mel gerte Modou Lo dugal na fii jël na ko jël na tànk ba jël na ko Bébé eh, eh, Ama jël na Modou Lo waaye Modou Lo bañ na newoon naa la mbëru tànk la ana mboot Modou jàppagul de ah, ah avertissement avertissé na ko waaw rasta yi am na mbër bu ko amoon ca Ndakaaru naan ko Oustaz Sow keroog ba ca waaj a jàppee koo dóor looy bëgg a dee dama xam seen rasta yi rek lu mu doon rek ndeysaan bébé Ama ma ngay dox ci kawam moo doon dugal ay góos armé droite bi dellu jël na ko jël na ko jël na ko bañ na jël na ko bañ na na ko bañ eh, baax na Modou Modou Modou na Bébé Ama bañ na bañ na eh, lay lay la Bébé Ama daan na Modou daanaan la Modou waxoon naa la Mor waxoon naa la yow bëreel naa la man de waaw. Ah. papi bi woowaat leen ni leen ndax pare ngeen ah waaw suuf la ah waaw Modou jàmbaar nga waaye kii ngay bëreel Modou ma ngay amaat lu muy essayé ah waaw bébé ama nangu ko bàyyi mu noppalu ñaar yi naataangoo la ñoom ñaar boo xool ñoo xaw a yem taxawaay ñoom ñaar. bébé xa ama xaw a ëpp tuuti volume aywa ah, waaw lamb jaaram ngoy déggal yooyu tëgg rek waaw am ngeen ne loolu bu ànd ak am pecc neex na ndeysaan tey nag moom wa idaa takarnaase Modou Lo ndax dina jëlaat tànku Ama bi wala doo ko jëlaat Ama dafa bëgg a bëre Modou Lo ngi reculé waaye am na lu mu ci bëre gis nga ko eh bandi la laa ilaaha illallaah Modou jël na coup de Ama jël ko takk ko. hey bu la takkee bu la takkee du baax ci yow de bu la takkee dina takk ci sa ginnaaw ah na am nga njëkk de wax bébé ama bëgg naa jeexal combat bi Modou Lo taxaw ko ni ko ko. jël na ko lay lay la laa li li mu doon li li mu doon li li mu doon jeex na Bébé Ama daan na ko Modou Lo sa gàllaaj ji daa bëri waay drapeau mag baa ngi noonu diggante Zos bu kanam ak ki nga xam mooy Siteu bu góor boo xoolee nag ki nga xam mooy Zos dafa daan Hercule Hercule moo daan Siteu waaye garab ci kaw lay fekkaate waaye ci lay sutaate ñu xool lii nga xam ne mooy Siteu moo gën a xarañ ci wàllu bëre waaye Zoss def na lu ne ci mbapat te moo ëpp dayo booy xool léegi nag ci wàllu xeex la ñuy xool Siteu ku mën a xeex la ku ñemee bëre combat bu yàgg la ku ma moo leen di arbitre arbitre soufflé na arbitre soufflé na ñoom ñaar fausse garde la ak garde normal Siteu wàcc na ci tànkam kon Zoss am na problème Zoss am na problème parce que Zoss bu bëreeg yow dafay bëgg nga sigi xeex ak moom ci kaw mu daw jël la ci suuf bis bu la jëlee dalee ramasser boole am kot lay def wala booleeg booleeg maanaam wing loolu wax wing ay wing wing mooy day dóor poj ca kaw tourné ak baraake la ca kaw a kaw dit la laa ilaaha illallaah ñoo ngi su ne Assane Ndiaye la. waaye eh, lamb ci nar naa yegg ndax dina yeggam déet ndax ñi nga xam ne ñoo farak eh, Siteu ay nit lañ ñoo xam ne dañ koo bëgg lool bëgguñu mu daanu waaye Zoss tamit tey jii dafa andi eh, mbooloo mu bëri bëri bëri binaaw bi mu daanee Hercule ndax dafa war a bokk ci lamb la wax ndax boobu ba léegi ci diggante bi mënu ci woon a dugg waaye dugg na ci xale yi dàq bëri ci dëkk bi. Siteu mi bokk na ci xale yi dàq bëri ci dëkk bi moo ci dàq bëri sax wax man man sama wax duma ko nëbbu de waaw waaw waaye nag am na gan nag am na gan <laughs> am na gan boo xam ne mu ngi ci dëkk bi lambaajo dëkk bi macha allah ah Siteu taxawaayam baax na fausse garde la moom Zos. waaye Siteu garde normal la ay bu ñu dajee ndaw bëri bu gaaw Siteu loo teg da koy teggi ma ngay wane waane waane man loolu bëgguma ko dama bëgg rek ah, waaw ki nga xamante ne bii mooy bolis euh, nee na supporters yi jóg leen jóg leen jóg leen combat bi jeex na waaye jeexagul de. bonus jeexagul ah arbitre bi suuna waat na ndeysaan ni ñëpp ñu tekk di xaar verdict lan mooy xew ci diggante ñaari kàngam yi nga xam ne ku nekk def na li nga war a def ci lambu tey Zoss bu génnee ci Siteu dafay bokk ci xale yi nga xamante ni bii dañoo war a génn dem digganteem ak Boy ñaa digganteem ak doomu mbake digganteem ak digganteem ak digganteem ak ndax doomu Mbàkke moo daan Siteu kon digganteem ak doomu Mbàkke dafay taxaw ak ay moromam digganteem ak Boubou Diaski digganteem ak ki nga xam ne mooy Salim Mané waaye tamit digganteem ak yeneen adversaire yi nga xam ne ñu ngi ci kaw ndeysaan waaye Siteu bu jógee ci victoire bi moom tamit dana nekk ci dynamique bu baax ndax euh, dafa jóge ci ay tolof tolof wala am taxawaay bu mat sëkk tey jii bi mu daanoo ba léegi daanul fii ci diwaanu Ndiarème moo tax gis nga saa saa waaye léegi jikkoom dikk surtout léegi jikkoom dikk parce que jikkoom mooy dafa mën xeex mën a bare loolu la yàlla moo def nag rëyul benn rëyaay bi waaye doole la doon la di ngeen jëlaat avertissement di yéen ñii bëri leen dañ leen a fay du ngeen bëre bëri leen waay bëri leen bëri leen waaw si te baaraam dey ba dugg na si taa ngay ñëw si te ma ngay ñëw ma ngay dikk Siteu boo nee bëreet rek Zoss dina la jël loolu lu ma wér la boo nee bëreet Zoss dina la jël xaw ma noo yegg see nag waaye Siteu bu ngeen xoolee loxoom bi nga xam ne mooy loxo càmmoñ bi nanguwul yéeg ci kaw ba léegi kon bu koy jël tamit bootu na fa fekk loxo ba ay eh waay waay bëri leen gaa yi ñu teg gaa yaa ni teg gaa yaa ngi ni teg ñoom ñaar ci géew fii ñëpp a ngi seetaan ndax journée Assane Ndiaye bi dana yegg e bu yeggee ñu xam ne Assane Ndiaye mooy mbër ndax gaa yi def nañ ko fi yeggul ñu defaat ko fi yeggul tey moom mu fas yéene koo def nag moom mu ngi koy def moom mu koy def moom ndax dina yëggam teet Zoss effacé ana Serigne ya Serigne ya la wax demal daan ko te ñëw ana laar ya ana béjjën ya ana cëwri ya ana dàkk ya ana sengoor ya ana ana ana oh ndeysaan tey <laughs> sama gaay yi ne le ay <laughs> si taa ngi jege si si taa ngi jege si waaye seen pare ba ñibbi seen pare ba ñibbi na awaaw ah, awaaw ah, oh. ay waay lamb waay arbitre dina waxaat ak yéen bëri leen te ba combat bi du jeex ci yow nga ñàkk nga ñàkk ndeysaan oh ay waay ndeysaan mu noonu Zoss ma ngay defaraat ngémbam ci ginnaaw Siteu da ngaa jël ñetti avertissement nag na nga xam ni ñaar dong nga dese ci combat bi loolu moom na ko xam boo demee ba di jël ay risque ah Siteu situation yaa ngay changé situation yi mu ngay changé waaw Zoss a ngi koy tëru Siteu a ngi ñëw Zoss mu ngi koy tëru Siteu a ngi ñëw Zoss a ngi koy tëru jàpp na ko lay lay la laa jël nga ay coups Zoss yaa ngi jël ay coups Zoss yaa ngi jël ay coups Zoss yaa ngi jël ay coups Zoss ma ngay rokkas maamit Zoss ma ngay rokkas maamit laay lay la laa ay sos sos sos a ngay rokas ma ngay rokas ma ngay rokas moom it laay lay la laa so di jël na coup ndeysaan dellu si waat nañ bi ñu xeexee sos dem ardo wala boog dem ca aari wala boog eh waay ndeysaan Sankharé amoon na gan léegi sos daa demoon ci Sankharé ndax ndax ndax Siteu da nga delluwaat wala doo delluwaat ay boo delluwaatee góosam ngóor sii. ay lay la la góose dafa tar waaye nag Siteu kor ba njëkk ba boobaa na ci loo adversaire am sos ndeysaan kenn ku doo yàkkamtiwaat laalante bi ndax laalante bi daa safoon de ak a safoon la defoon awaaw ah ña ngi ko cee bëgg a delloowaat gis nga ey léegi laa gis nga léegi léegi laa si que ma nga ca si taa nga ca marinam Zoss jël na ko Zoss jël na ko si ta bañ na si ta bañ na Zoss jël na ko Zoss daan na si